bisimillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi membre daara yi isbu tarixé yi ñi ngi leen di nuyu di leen sant ci turu jëwriñu daara yi sëriñ si Diop ñi ngi fii nag ci kër xasida yi nga xam ni daara isbu tarixé moom lay tabax ci ndigalu cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des mourides fii ci université bi di mu jama cheikh Ahmadul Khadim jublu gi nag mooy ndajem assemblée général boo xam ne daara Hizbut Tarqiyyah fas ko yéene amal fii ci barab bi gaaw juróom-ñetti fan ci weeru janvier 2022 mu war a dëppoog ñeent wala juróomi fan ci jumaada saani ci loolu kon dinañ jox jëwriñu daara ji sëñ Youssou mu leeral ndaje mi nan lañ ko fas yéene defee ak bunt yi nga xam ne moom lañ ci fas yéene waxtaanee su àggalee ñu jox Serigne Mbacke Thioune mu woote ci turu coordination des cellules nationales de Hizbut Tarqiyyah ak coordination des cellules à l'étranger de Hizbut Tarqiyyah muy mbooleem daara yi nga xam ne Hizbut Tarqiyyah am na ko ci biir réew mi ak ci bitim réew ngir ñu mën a teew ci ndaje mi bu àggalee jox sëriñ Modou Thiam ci turu mbooleem daara yi nga xam ni ñoo ne ci Hizbut Tarqiyyah mu indi soññe bi wax itam fi ñu fas yéene taxaw ànd ak direction générale bu Hizbut Tarqiyyah ci liggéey bi bu ñu àggalee nag sëriñ Ibrahima Keita ci turu direction général dina leeral mboole membre yi nan la ñuy dikkee waxtu yi ak ni nga xam ne programme bi ni lay tëddee. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu bokk jullit yépp di nuyu bokki yépp yëpp na nag ñi nga xam ne ñoo bokk daara Hizbu Tarxiya di jiital ci samay kàddu ak cant ak uk ziar ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla na ko fi yàlla suñu borom bàyyi mu yàgg fi lool. bu mboolem naal yi mu am ci toolub Seexul Xadim ak ci lislaam mu àggale ko te nu ànd koog moom euh, di ci teg nag njabootu sëriñ Touba gépp di leen ziar di ziar itam seexi Serigne Touba yëpp ak ñi nga xam ne ñooy sunu bokki dongo yi li ci tege mooy bis bu màgg bi nga xam ne Cheikh Mamadou Lamine euh, wax na ko nañu xam ne bisub ndaje la ak bisub soññante ndax ay dongo bu ñu seqee liggéeyal sëñ Tuubaa faw ñu soññante ngir liggéey bi di dem ndax loolu mooy ñoddi ci ñoom ndimbalal yàlla ak xéewalam kon bis bi fii lay amee ci këru xaside yi di juróom-ñetti fan ci weeru janvier bisub gaaw waaye wara a doon itam ñeenti fan wala juróomi fan ci maamu koor muy jumaada saaniya bis la nag boo xamante ne ni ñu ko bëggee mooy benn membre bañ koo wuute suñ ne benn membre bañ koo wuute mooy ñu nekk bitim réew sax incha allah jumtuwaay xarala yi dinañ jokkoo ñoom noo xam ne dina mel ni teew nañ fii suñu biir waaye ñu nekk ci biir réew mi moom bu kenn sàkk aw lay na ñëpp ñëw ñu daje fii ci këru xaside yi fii ci euh, université bu màgg bii nga xamante ne sëñ Tuubaa moo ko faggul lislaam faggul ko yoonu murit teg ko ci loxol Cheikh mun Mountakha ñu koy wax université waaye weesu na université ndax jaamiya la boo xamante ne lépp ngi ci biir njàngum alquran njàngum majalis ak njàngum université njàngum kawe mi lépp ngi ci biir muy loo xamante ne incha allah dina yeesalaat barab yu mag yi nga xam ne ba lislaam doonee loo xamante ne adduna sépp xam nañ ne lislaam tiim na lépp ba tey barab yi ci gënoon a màgg ñu ko daan wax incha allah bii dina bokk ci yooyu baabu féete ci kaw loolu nag yàlla nañu ko fekkee incha allah te ñeneen ñi ñëwaat di gis ne saasu ne day gën a jëm kaw bis bi nag li nga xam ne mooy li ci am solo mooy membre yi damaa bañ ñu xatal ko mbooleem ku njëkk bindu ci isbu tarxiya ba ci ku mujj bindu nañu xam ne isbu tarxiya la ci sëñ Abdou Lahad waxoon rek mooy wax ju am solo mooy buntub dugg la waaye du buntub génn kon képp koo xam ne benn fan nga fi mës sa def liggéey bii noo ngi la ci fasaale te noon ngi koy ànd ak yow ci sa yéene. wala ci sa jëf waaye na la wóor ne ci li nga xam ne moom ngay siggee yow mal xiyaam liggéey bi dina ci bokk kon kenn koo xam ne boolewuñ la ci amul li ma ciy tudd nag mooy su ma tuddee rek ñi nga xam ne sëriñ aatu bi nga xam ne yàlla suñu borom dafa dogaloon mu tàmbali liggéey bi bu yóbbu ko fu sore yàlla suñu borom dogal tey jii ma nga ca wetu seexul xaddim di sëriñam ba ñu koy teral ca àjjana la tax ñu rafet ci njott du dara lu xam ne ku liggéey sëñ Tuubaa di nga añ waaye ñu ngi ñaan yër yërmande suñu borom ak njëggalam ak ak ngërëmal sëñ Tuubaa di dotti ko ci moom saa su ne waaye ñamu àndaloon liggéey bi ca njëlbeen su ma ci tuddee kenn rek dafa mel ni ñëpp tuddaale naa leen Serigne Saliou Mbuub nga xam ne moo jëkk nekk président daayira étudiant murit en 1975 76 ak juróom-ñeent yi nga xamante ne ñoom ñoo ko doo woon ci biir pavillon A ci université Ndakaaru boobu ba bisub tey muy góor muy jigéen ku ci dugg bokk ci rek ak sa jaboot ci nga bokk kon Hizbut Tarqiyyah ngoog du bunt bu xat du kër gu xat lu yaatoo yaatu la loo xam ne foo dem di fa fekk ay xasam la ci des nag mooy sañu ñoo woote di wax ne taalibe bu am looy def ci kër xaside yi nga indi ko déedéet ñun sañu wootee ndoo ak sëriñ bi biir Hizbut Tarqiyyah ci lañ sañ a waaye nag am murit sañ na gis ne këru xaside yi la mu am yéeneem am jëfam joo xam ne da ko cee bëgg a tàbbal su ko indee dinañ ko ci defal waaye nag kenn koo xam ne ñeme nañ laa woo wala di wootee ndoo ak sëriñ bi wala di laajandoo ak sëriñ bi mosuñu koo xalaat loolu defe naa moom mooy doxinu Hizbut Tarqiyyah naka jekk te noon la ñu doxee ba su tey bis bi nag waxtaan wi ñaari xaaj rek lay doon xaaj bu njëkk bi dinañu indiwaat historique bi ñu jotee ndigal li bi ñu tàmbalee liggéey bi ak suñu jëwriñ ju baax ji nga xam ne mooy Cheikh Atou Serigne Atou Diagne ca taxawee ak gis-gis bu kawe bi ak yéene ju sore ji te sell ba liggéey bi doon liggéey boo xam ne tey jii ko gis xam ne bokk na ci ouvrage de référence yi ñu bëgg mu doon loo xam ne àdduna sépp ci wàllu bibliothèque day doon une bibliothèque intelligente boo xam ne dañ koy jagleel Serigne Touba ak i téeréem loolu nag dafa doon loo xamante ne dañoo war a leeralaat historique bi ci gros œuvres yi fi ñu tàmbalee ci implantation ba bisub tey ñi nga xam ne ñoo yor tamit wàllu finance ñu leeral fan lañ ci jaare ba toll fii ñu toll ndax am na nu ñu tàmbalee am na ay liggéey yu ñu def loolu lépp ci ay këyit la nosu war nañ koo leeral nit ñi xam ko bu loolu jàllee nag mu kañ tamit daara yi ndax taxawaay bi ndax kenn ku ci ne ñun gis nañ ne ni ñuy doxee mooy yu saare woon na fil xayraat kenn ku ci ne bëgg nga liggéey bi kenn du la ci man kii da lay jox ne la lii maa ko joxeel sama bopp waaye lii maa ko joxeel samay wayjur wala lii maa ko joxeel sama maam yi nga xam ne ñu nga ca ñu nga loolu lépp pas-pas boobu dafay loo xamante ne yàgg na ci lislaam yàgg na ci yoonu murit waaye na la na leen wóor ne yitte jooju sëñ Tuubaa doonu ku ku ku ku ñeme bor dafa amul pay kon yitte jooju lañ bëgg ñu salaat ko nag jóge ci gros œuvre yi war a song nag li nga xam ne mooy second œuvre wala war a sogg li nga xam ne mooy travaux de finition yi loolu nag bëgg nañu ñu xam ne mooy li ci gën a jafe waaye li muy doon doon lu jafe pas-pas bi ko war a lal rek mooy li ci am solo pas-pas boobu suñ ci góorgóorloo incha allah dinañ ci am lu kawe suñ njort. ñaareelu euh, xaaju waxtaan wi day jëm ci li nga xam ne moo nekk suñ kanam li nekk suñu kanam nag day liggéey boo xam ne liggéey bu rëy la waaye liggéey sëñ tubaa moom pas-pas ak yitte rek waaye la ngay da la wóor ne sëñ Tuubaa ndax des na wàllu travaux de finition revêtement yi sol revêtement mural wala li nga xam ne moo jëm ci wàllu électricité wala ascenseurs yi wala climatisation bi wala système de sécurité bi wala vidéo surveillance yi wala li nga xam ne mooy dencukaayu téere yi ci boppam wala nga jël imprimerie bi nga xam ne ñu bëgg mu doon une imprimerie de dernière génération boo xamante ne du mool dara lu dul téere yi Sëñ Tuubaa te it Sëñ rek ko moom Euh, wut wut koom taxu koo jóg jaay jënd jënd ka jaay taxu koo jóg jagleel ko sëñ Tuubaa moo ko tax a jóg kon loolu tamit yëpp muy loo xam ne buñ ko toppee day doon un bâtiment hyper intelligent boo xam ne ci système de sécurité bi ak ci lépp li nga xamante ne fàggu nañ ko ci bëgg nañ mu doon loo xam ne àdduna sépp boo waroon ba mu dajit di nga xam ne ñi ko liggéey am nañ pas-pas te fi ñu tollalee sëñ Tuubaa bëgguñu kenn raw leen ci lii daal moom mooy li ñu war a song waaye songin wi nag nañ ci am dalub xel ndax sëñ tubaa suñ borom da koo may adduna ak àllaaxira mu fàggu lépp moom li mu bëgg rek mooy dong bi na jekk ci pas-pasam ne ko sëriñ bi jaral lépp loolu su amee rek dina song loo xam ne kenn mënu ko sëriñ bi yombalal ko ko kon loolu moom mooy li nga xam ne moom gars yi nga xam ne ñooy soññekat yi dinañ ci ñëw wax ceeg daara yi su ko defee ñëpp ñëw nag teel a ñëw ñu ànd liggéey bi tey tàllal suñu loxo seexul xaddim mu defal ñu kër euh, fii nga xam ne mooy këru xasida yi ñu xam ne xasida ab dongo bu denc xasida këram sax waxuma la moom waaye li ko wër lépp moo koy aar waxatuma la ak foo xam ne téere yi sëñ yi ci boppam ki fi toogal sëñ Tuubaa moo nu digal nu fàggul ko barab boo xam ne fa lañ koy denc kon yal nañ ko ànd ak Cheikh Mouhamadul taxa àggale ko jëfe li sëñ aatu waxoon te wax ko ko moom ne ko caabi lañ la ameel ñu jébbal ko caabi yi naalaat yeneen naal te ànd ko am ci ngërëmal sëñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. auzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi tàmbale suñu kàddu rek di njëkk a ñaanal jëwriñ sañ aatu mais xam ne liggéey bu rëy bii sunu borom si moom la dogalee mu sumb ko mu doon liggéey boo xamee képp koo xam ne ku ko gis la rek day la wóor ne kii léppam seeni Sëriñ Tuubaa tey li nga xam ne moom la yéen xaside yi foo ko natt rek weesu na ko ndax ambition yi moom képp koo xam ne kuy professionnel bâtiment la boo fi ñëwee da nga koo xam ne moom foo tak natt yéene gi rek weesu na ko kon yàggal suñu borom dolli xéewal si àjjana ci nga ne moom la ne te it bu loolu wéy it suñu jëriñ sëñ Yuusu ñaanalee sëñ Muntaxa mu àggale lépp lu naal boo xam ne am na ko rek dañuy sof suñu ñaan ñaanal ko moom miit su daraje xasida yi barke Serigne Touba mi nga xam ne moom lañ yaakaar sunu borom bàyyi ko fi kàttanal ko ba mooy yéene sëñ aatu jooju nga xam ne gis naa mu wax sëñ Mountakha na ko caabi laal ameel caabi yooyu moom na ko sëñ Youssou mottali lépp jox ko sëriñ Mountakha te lépp ñu ànd ko moom kon loolu ñu ngi koy ñaan di ko dogg si xaside yi bu lool wéy di woo mboolem daara yi nga xam ne rek ñoo nekk si biir Sénégal si cadre li ñu tuddee coordination des cellules national woote boobu nag li jëwriñ waxee rek lañ si njëkkee lañ njëkk ci woote bi ma xam ne képp koo xam ne ku nekk si biir réew mi la membre bu mu mënti doon rek farata la si yow sa teewaay si bis boobu muy gaaw juróom-ñetti fan si weeru janvier bi nga xam ne moom lañ dëgmal kon bu kenn manqué képp koo xam ne euh, si biir Sénégal nga nekk rek na nga jël yitte yi si mat yëpp teel ko waajal bis bu ñëwee bu kenn manqué moo ñi nga xam ne ñoo nekk si bitim réew si cadre coordination des cellules à l'étranger ñoo ñu ngi leen waajal ñu ngi leen di eh, soññ bu baax a baax si teewaay boobu te mën ngaa jafe waaye xare li nga xam ne moo si war jëwriñ wax na ko incha allah des na matale xale ba képp koo xam ne ku ko mën a suivre rek nga suivre ko gannaaw wootee soññee si teewaay bi la si des nag mooy soññee si liggéey bi nga xam ne moom moo nekk suñu gannaaw nii nga xam ne jàkk moom ku ne ko jàkk dootul natteeb la dara te naa mbooleem mbokki taalibe képp koo xam ne ku fi ñëw la ba ñëw barab bi ba visité ko boo doon dox benn jéego da nga ko multiplier par dix ñi nga xam ne professionnel lu bâtiment lañ comme man yéemu naa yéemu goo xam ne it doy na war ngir wóor na ma ne liggéey bi euh, euh, ambition bi daal yéeme na yéeme koo xam doy na kon si loolu ñu xam ne it la koy liggéey du lu yomb ndax da xam ne fitig murid rek moom moo ñemee song lu mel nii te xam ne ni ko jëriñ waxee rek sëriñ bi lépp moom la moo koy àggale kon foofu la ñu soññee xam ne ñun murid tëlewuñ dara kon mbooleem membre yëpp daal mboolem cellules yi si biir réew ak biir réew nañ waajal bis bii bu baax a baax a baax te bu ñëwee ñu dogu si dogu goo xam ne it lépp loo xam ne ñu si dogu la rek sëñ Tuubaa day si dimbali ndax pas bi nga xam ne moom loo rek mooy li am solo man talabal amra wa jadd wa jadd wa man xaraxan baa wala jaw laj kon tëlewuñ dara nañ ñëw kenn ku nekk nag dogu si jël loo xam ne yaa koy sos sa bopp ndax murit bu bëggee dox day diir ab diir diirib diir boobu nag ñu ngi koy soññ képp ku fi ñëw daal bis boobu na nga diir bu sore sore sore sore te xam ne bu pas-pas bi matee rek sëñ Tuubaa dina dimbale ba nga def si lu kawe njort lépp kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bisimilah barke ñu ngi ziar mbokk taalibe yëpp di santal Seexul Xadim mbakk bu wér ci liggéey bi dégg nañ jëwriñ daara ji li mu leeral wax ko ci bis bi nga xam ne jàpp nañ ko euh, muy juróom-ñetti fan ci weeru janvier bii ñu jëm di santaat Cheikhul Khadim Mbacke ngir dajalawaat mboolem membre Hizbut Tarqiyyah ñu ñëw fii ñu xoolaat liggéey bi soññante liggéey bi ñun soññante rek moo ñu fi bàyyi dund sëñ Touba dund liggéey bi loolu mooy suñu àdduna mooy suñu alaxira ndax fii tey jii ba fi Cheikh mun Mountakha ñëwee jëwrin daara ji sëñ Atou Diagne yàlla suñu borom yokk ay leeram su di wàcc ay ci moom ay xéwal di wàcc ay feex ci kaw ba saa di taxaw fii la taxaw wax ak Cheikh Mouhamadou Mountakha wax na ko liggéey bi day buñ ko booleeg liggéey bañ ko doon taxawoon aynu rahmatin la ko sëñ Blaat waxoon ci na ko seen liggéey bi suuf suuf du ko lekk kon lii kenn ko ne sa seer lay doon bisu penc kon dañ koy sant Cheikhul Khadim euh, liggéey bi nga xamee nii nag dafa ne suñ muy ak jaayante goo xamee ni ginnaaw gi loolu amee ñu jaayante fii wax Cheikh Mamadou Mountakha wax ne lam ci jàppoon ci la ñu waroon a liggéey rek mu defar kër gi ci ñeent fukki million lañ ko xayma woon ginnaaw gi bi ñu ko xoolaatee ñu xoolaat ne buñ ci yokkee yeneen yeneen euh, ñaar fukki million muy 60 millions biñ ñëwee xool xayma bi euh, mu am yitte ji fu mu toll Cheikh Mamadou Mountakha ne comme yitte la rek ak pas-pas ak yóbbu ko ak ak ak fonk bis ak fonk kër gi buñ ko doon wurus mbaa jamaa sax baax na kon loolu moo indi liggéey bi mu toll fii biñ jógee ci loolu diggante bi moom mu wuy ji sëñ Touba dem di ko di ko liggéeyal foofu ci saasi diir bu gàtt jëwriñ daara ji woote ab ziar ñu yóbbu trois cent treize million yoo xamante ne bi dane nañ nañ nañ nañ ñëw ci sëriñ bi xamal ko ne ko liggéey bi day wéy di dem ñu indi trois cent dix huit millions trois cent treize millions lañ jàppoon indi juróomi millions teg ci muy trois cent dix huit millions bi ñëwee jub màggal jëwriñ daara ji waxaat ne bu ñu xaar naa indi juróomi téeméeri xaar jox ko boole ko nagi màggal ak ceeb ak suukar li muy àndal biñ jubee màggal ñu war a def dal alvoyer euh, leer yi muy dal dal yu nga xam ne nii moo topp ci yi ñu war a def incha allah fii ak ñeenti fan yooyu ñu xayma ko mu doon 60 million ñu ne ko ah ñu ngi ci biir màggal gi de parce que buy ñëw presque day ay ay 12 safar lay doon 13 safar jëwin daal ja nañ ko song dal yooyu nañ ko def mu commandé 60 millions yooyu ñu indi ko teg ci dal yooyu kon loolu dañ koy sant Cheikhul Khadim biñ génnee màggal gi dañoo nañ wéyal liggéey bi liggéey boobu moo jeexal troisième phase bi ñu song quatrième phase bi fi mu toll nii ci lañ nekk nii mu woote nag ngir ñu ñëw mu nekk revue de troupe ñun lii mooy suñu alal lii moom lañ moom lañ yaakaar lii moom lañ gëm te lu mu laaj wóor na Cheikhul Khadim Mbacké dañ koy def ci xol bu sedd guy ndax lii rek mooy alal ci kaw suuf lii rek mooy gànjar ci kaw suuf li te lii moo ñu fi bàyyi kon membre bu ko kenn nangu di xaar ñu ñu lay woo pour nga war a ñëw na ñëpp mobiliser wu ñëw muy mag ñi góor ñi soxna yi mag ak ndaw tutànk yi espace yëpp na ñëw ni nga xamante ne bii bi ñu def fondation bi rek 60 millions la kilifa gi jënd ci fer ñu def ko fii 60 millions lañ def ci fondation bi 350 tonnes moom lañ def ci ci ci fondation bi ngir mën a bâtiment bi mën a jug boobaag léegi amul taxaw kon dañ koy sant Cheikhul Khadim soo wootee ne revue de troupe laay def ngir membre yi tarxee ñëw ñu déclenché waat deuxième phase bi boo xamante ni bi mooy jëm ci revêtement extérieur ak intérieur ak carrelage ak ak plomberie ak lu ma doon bu doon ñaari jekk nañ te sëñ Tuubaa moo koy def lañ sëñ Bilane waxoon ci ne. ku ciy dem yow rek kay ànd kenn du la gunge yow rek ak say jëf ñun loolu lañ xam moo tax ñu bëgg liggéeyal Serigne Touba kon ñu ngi ciy woo mboole membre yi na ñëpp maasandoo ñëw te xam ne lii sëñ Touba def na ci lim ci def sëñ Mountakha ñaan na ci yëf yi xewal la bañ jógee ci ziar ba rek ñu am isbital xëy ñëw ba sëñ Mbacke Cuun mi moo nekkoon seen jëriñ bu ñu waxee isbital xëy daal ko dos sëñ Mountakha dina boole man isbital xëy benn laaj xam boole leen mbooloo mi dafa yokk wala yokkuwul mbooloo mi doon na ñaar fi tol toll nii lañ doon dañ koo doublé ñañ ñëw ñu àndandoo liggéeyal sëñ Touba te loolu mooy tawfeex te loolu lépp Cheikh Mamadou Mountakha moo ko moo ko ñaan ñaan ko sëñ Touba mu may ko ko mu yi nangu ko kenn ku ne sa xol di di baax di di di di kontaan màggal gi ñu ànd ko def ko defin mu rafet li ci suñ kanam lépp noonu lay mel. kon yow loo song barke Cheikhul Khadim jekk nañ lu la neex tuddal xamal ne ca saasa danañ ko def te feex rek lay àndal. bismillah barke borom Touba kon euh, bés baa ngoog ni ñu ko waxee 8 janvier lay doon 2022. fii ci bërëb bi di kër xaside yi ci biir euh, complexe université bi ci Touba. kon euh, ci turu comité de pilotage lañuy wax ndax euh, dañ koo sàkkal comité. xam ne ñoom sëñ Omar Sall ak ñoom sëñ Mourtala Sey ñoo ne ci bopp ba war a wax ak nag mbooleem membre yëpp bàyyiwut kenn ku ne mbooleem membre yëpp nag góor a ngi ci jigéen a ngi ci mag a ngi ci gone ngi ci. ñu xam ne kon disposition yu matale la ñuy jël ci wàllu aménagement la ñuy jiital ndax faw ñu sàmmonteeg sartub góor ñi fexe ba fi ñuy waajal pour góor ñi ñu nekk fa soxna yi naka noonu xale yi naka noonu loolu di liggéeyu boppam ñu xam ne kon ginnaaw supervision wu comité de pilotage bi mboolem secteur yi ñu baaxoo xam ci organiser dara ci daara yi Hizbut Tarqiyyah ndax mbooleem secteur yëpp xam ne ba bésub liggéeyal sëñ tubaala ba sub liggéeyal sëñ Tuubaa nag dana am ay waajtaay yu bare yoo xam ne du mën a ñàkk ñu def ci waxtaan ngir euh, li ñu baaxoo kañee isbu tarxiya ci wàllu organisation buñ fi dikkee waxtu wu nekk ñuy wane ne tànkum kanam la am waaye amul tànku ginnaaw kon fa ñu waajal oto yi nañu xam ne du ku nekk moom war a mën a ñëw gaare nu mu ko neexee dana am ay parking yu ñu aménagé ngir kenn ku ci nekk boo dikkee buñ la xasee leeral Euh, yow fa nga xam ne fa nga war a gaare mu bañ a am benn coow ginnaaw loolu it ñu xam ne wattaayu bés bu ñu toll dana laaj ay ay secteurs yoo xam ne foog ñu liggéey ci phase préparatoire lu mel ni mbooloo mu toll noonu ku koy dajale ku ne faw nga bàyyi xel waaj ay xéewal yoo xam ne ñu dikk ngir liggéeyal sëñ Tuubaa ci bés bi dinañ dikk ci teeyu bakken waaye ñu sàmmonteeg may leen féexuk la war ca ñoom yëpp ci wàllu jëfandiku loolu yëpp waxtu wu waree teew mu teew ba tax ni ñu bëggee liggéey ci bés bi ñu liggéeyee noonu bu ñu tànnee nag secteur yooyu wax ko du ñu fàtte mukkit li aju ci wàllu communication ndax bésu communication la boo xam ne dañoo bëgg képp koo xam ne dikk nga ci bës bi ngay membre wala noo mën a jàppee ci liggéey bi nga yëg ne liggéey bi fii la dalee ba fii loolu nag ku teew ci barab bi ñu koy wax présentiel nga am li nga bëgg waaye nag képp koo xam ne Euh, xat-xat tax na mënoo teew foo mën a ne du sax bitim réew rek waaye ci biir réew mi des na teg ay jumtukaay yoo yu tax képp ku ne ci biir réew mi te xat-xat tax mënoo teew euh, yaakaar naa ci wàllu communication danañ teg ay jumtukaay yu tax fu waay mën a ne ci kaw suuf ñu def ko benn événement majeur boo xam ne ñëpp danañ xam ne kër xasida yii nga xam ne yoon yëpp ko moom du liggéey boo xam ne day liggéey bu ñu jagleel isbu tarxiya dañ ko ko sant ci wàllu taxaw waaye liggéey yoonu murit la fépp fu murit mën a ne ci kaw suuf mu xam ne ñu ngi taxawal fii kër xasida yi sëñ Tuubaa yi te fii la liggéey bi dalee fii la yem ba yegg ci ñu leeral ñëpp li nga xam ne moo des suñu kanam xam ne it defuñu ko ci àqi lu dul soññante waat suñu biir xam ne xare la xare nag ni ko sëñ mu tam waxee ni ko sëñ Mbàkke Cuun waxee war naa tax ñu delloowaat suñu xel tees na saaba ya defoon waxtu wu ñu wootaa mosaa woote xare kenn ku ci nekk danga nan naan kenn duma ci mën kenn duma ci mën nag moom la ñuy wooyee membre yëpp kon du góor du jigéen du mag du ndaw ñi ngi xaar ñëpp programme bi dana génn danañ ko communiquer ci groupe yi muy CCN ak CCE ba tax kenn ku ci nekk xam ne du mën a ñàkk am na ñoo xam ne danañ France yi kon waa protocole hébergement accueil du mën a ñàkk ñoom it ñu tëral ay dispositions yu tax daara yu sore yi te war a ànd ak ay jigéen war a ànd ak ay xale lépp lu war a am ci taw tawféex ba tax ñoom ñu dikk ci anam bi ñu war a dikkee ànd ak liggéey bi nu ñu ci war a àndee loolu yëpp ay dispositions la yoo xam ne secteur d'activité yëpp. mboole seen ndax buñ ci naroon topp di ko lim benn ak benn mën nañoo jëlal lu bare waaye xamante nañu xamante nañu boobu nag mooy tax kenn ku ci nekk la cay war ci waajtaay ci sa wàll nga xam ne waroo cee xaar kenn danañ ko ànd di ñaan seexul xaddim yegg ci bés ba ak jàmm liñ ci yéene ci liggéey yëpp ñu liggéey ko te daje ceeg ngërëmal sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf. kon jërëjëf sëriñ Ibrahima Keita ci kaddu yi leeral yu am solo yooyu jërëjëf sëriñ Mbacke Thioune mi woote ci turu mboolem yi ak sëriñ Moutiam mi nga xamante ni soññee na fi nga xamante ni fa la membre daara Hizbut Tarqiyyah war a taxaw ci liggéey bii kon ñun ñëpp dégg nañu kàddu yi jëwriñu daara yi Serigne Youssou yëkkati mu jëm ci liggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha dafa waxoon ne tawféex ji ñu ci am mooy Cheikhul Khadim ci boppam mu ci jublu ñu feeñ ci liggéey bi kon nag loolu rëy la loo xamante ni amuñ njëgam kon nag bépp membre boo xamante ni yaa ngi ci Hizbut Tarqiyyah ak foo mën a nekk na nga déglu woote bi fonk ko te fas yéene wuy si am ci nag ñoo xam ne ni ko jëwriñu daar ji sàkkoo daf leen beral seen woote bopp muy kuréelu xaside yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daara isbu tarxiya te tey jii bi lépp àndee di génn njaboot bi ñu ko xaymaa dana jege juróom-benn fukki kuréel nga xam ne ëpp nañu junniy nit jëm juróomi téeméer kon nee na ñooñu xam ne bu fekkoon liggéey bi xarela ñooy barrage yi nga xamante ne ñooy jëm ci kanam kon ñoom nañu xam ne kenn jiituwu leen ci comité de pilotage bi ñu ngi leen di woo seen woote bopp ci teel a ñëw ak fas yéene taxaw ci liggéey bi ci mboolem fànn yi nga xamante ni féetal nañ leen ko ba niñ ko bëggee ñu amee ko ni di fàttali bis bi muy gaaw juróom-ñetti fan ci weeru janvier atum 2022 wala dëppook ñeent wala juróomi fan ci jumaa de saani di ñaan suñu borom yeggal ñu ci ak jàmm ñu sàkku ci ngërëmal Serigne Touba te am ko ci di ñaanal Cheikh Moudou Mountakha mu yàgg fi te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéeyu Serigne mu matale ko te ñu ànd ko ak moom. moom na mu ko gisee. li ma ci jublu woon. li mu ci jublu woon. mooy dajale mbindum sëriñ bi rek. mooy dajale mbindum sëriñ bi rek. loolu. loolu fañ koy def. fañ koy def bu ñu ko defoon or mbaa jamaa itam. ko defoon or mbaa jamaa itam. jar na lu ko. jar na ko ëpp. te it am na meneen mbir mu ci feeñ nag. te it am na meneen mbir mu ci feeñ nag. kon liggéey bii borom mel na ne borom xam na ne noo noo noo noo ngi ci nekkal. dafa mel ni liggéey bi borom xam na ne noo ko ci nekkal. bañ tuddee jàngukaay bi. bañ tuddee jàngukaay bi. lii xalaatuñ ko ci woon. lii xalaatuñ ko ci woon. waaye moom nag. waaye naka te moom nag. moo wane ne mënuñu cee ñàkk a feeñ yéen. wane na ne mënuñu cee ñàkk a feeñ ñun. moom rek indi lii. moom rek indi lii. jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke.